loi bi bu duggee Sonko ne sera pas candidat Macky Sall ne sera pas candidat. ah bon ah oui te ma ma ah, la ko xam nga du ah, tax. tagal ma lool nañ ko dafa am. Euh, hmm? ragal nañ ko loolu ñu xam nga euh, lan mooy. fi mu euh, doon waxee ci France waaw gis nga gis nga. tagal voilà dafa mel ni président Macky Sall dafa nekk ci géej nara a lab nar jàppale Sonko lab moom ci biir. exemple mooy li may wax ni euh, il m'a semblé que affaire bi mu junj nii bu ñu ko toppee ba ci biir président du bokk mais ñàkk bokkam Sonko tamit du bokk te te te ci nan laay wax xam nga tey jii ñoom suñu jëlee loi suñu jëlee par exemple ñu ni dañu changer article loi bi bi peine bi day deñ mais amende yi ñu leen amende dafay des su fekkee dañoo dem modifier loi électorale ñoom voilà loolu euh, ils recouvrent leur droit civique mhm. mais amande bi ñu leen amandoon pour ñu bokk ci benn élection il faut ñu fay léegi nag beneen jeu bi nag ngay xool mooy bu ñu duggee euh, li nga doon wax ni amnistie et c'est là où ça devient dangereux bu ñu amnistier à la fois peine bi maanaam lépp lu ñu leen toppee amande yi yëpp dañ koy gas suuf mais bu ñu ko euh, gasee suuf te changé wuñu loi bale régime bi mën na tëgg procès Sonko su ko tëggee dem ba tribunal mu dóor ko sursis coow li bari yooyu ñu dem dëkk mu ne ko sursis mais dès lors ko mu am sursis il n'est plus électeur il n'est plus éligible voilà la subtilité mën nañu du ñu tëj Sonko de mm-hmm. mais dañ koy wax rek un mois je donne exemple un mois avec sursis le fait que mu nekk peine ferme ak peine sursis de facto du point de vue du droit Sonko et disqualifié léegi su boobaa bu coow naree am régime bi mën na ni mais pourtant loolu moo fi daloon Khalifa Sall ñu disqualifié ko. Khalifa la ñu disqualifié ko moo dal son bu ndax duñ ko disqualifié coow nar a am fi Macky génn taxaw ne bon man de toute manière nekkatuma candidat.